si c'est bon. oui. salaamaaleykum euh, mbooloo bi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur seen sant di leen wax rek nii tey waxtaan bi dañ koy tënk si ñetti poñ bi ci njëkk mooy li këyit yi wax dama ñëw ak yi nga xam ne moom la experts yi def te justice laajoon leen ko pour ñu càmbar. diggante Bocar Samba Dièye ak CBAO nan la problème bi tëree may fàttali ni rapport bu njëkk bu justice demandé pour ñu def ko expert bi ba mu ko defee dafa ne Bocar Samba Dièye moo am dëgg ci problème bi nga xam ne jafe-jafe yi nga xam ne am na ko ak waa CBAO waa CBAO de d'accord pousse justice ba mu génnee rapport boobu ne justice jëlaatal beneen expert kee dafa juum beneen expert bu mu ñëwee moom it mu wax la même chose xamal justice ni CBAO moo amel Bocar Samba Dièye xaalis te il faut ngeen xam ni expert ni muy liggéeyee mooy day woo Bocar Samba Dièye mu toog mu woo waa CBAO ñu toog mu ne leen ku ne génnee kayit ci mu yor CBAO génnee ay këyitam teg Bocar sàmba Dièye génnee ay këyitam teg waaye nag il faut ngeen xam ni këyit yi Bocar Samba Dièye yor CBAO la ko jëlee donc këyit yëpp ca CBAO la jóge génnul feneen Bocar inventé wul benn këyit créé wul benn këyit expert bi xool këyit yooyu génnee rapport xamal justice ni ñaar ñi seen diggante. CBAO moo amel Bocar Samba Dièye xaalis te dafa ko ko war a fay ba mu jeex tàkk comme wax ji frankulaay na parce que juge du expert juge day atte waaye du financier du expert bu bëggee am lu ko leer ci benn diggante boo xam ne mbirum finance la day woo ki nga xam ne xar xam-xamam dafa mat ci mbir mi muy expert bi mu ne ko dama bëgg nga xoolal ma seen diggante nan la tëddee boobu ba léegi 2008 ba léegi décision bu ñu génnee Bocar Samba Dièye moo am dëgg ci CBAO tout récemment la ñu dugg ci biir néeg génnee benn décision boo xam ne nee nañ sebe euh, dëgg yi Bocar Samba Dièye amoon kase nañ ko mais ba léegi bay wax ak yow ni décision bi génnagul ñemewuñu koo génnee parce que xamuñu lu ñu fay wax parce que li leer ba leer mooy CBAO mu amel Bocar Samba Dièye xaalis kayit yi loolu la wax waa juge bu bëgg a taxaw ne loolu noonu amul fan nga koy wékk donc dugg nañ ci nekk def la ñuy def bëgg a casser décision bi <coughs> loolu nag duñ ko nangu parce que nee nañ jugé nañ ko Bocar Samba Dièye newu fa woon à def par défaut lañ ko jugé ay tappale yoo xam ne ñun mënuñu koo nangu parce que Bocar Samba Dièye am na ñetti kabina d'avocat yoo xam ne daanaka ñëpp a ngi liggéey ci dossier bi. comme boog mbirum bor bi CBAO moo amee Bocar Samba Dièye xaalis loolu farankulaay na loolu dépassé nañ ko beneen bi mooy il faut que ngeen xam ni CBAO njuuj njaat yi muy doxe tax na tey képp koo xam ne client nga biir CBAO ba nga ko. ñëpp a ngi génn di dem mais li ci gën a doy waar mooy même ñi fay liggéeyee tey jamono yi mee wax yéen ñëpp dëgg ngeen ko ñu ngi ci grève parce que doxalinu banque bi ñoom seen bopp wóor na leen ni baaxul du banque buy doxal dëgg du banque buy teg mbir ci yoon banque la boo xam ne dëgg sërëx njuuj njaaj ak sàcc la ñuy liggéey donc il faut que sénégalais yëpp xamee ko noonu bu ci mujj mooy. Bokar mag la am na juróom-ñeenti fukki at daanaka donc ku mel noonu fukki at ak juróom muy bëreeg banque bi te moom kese la amul état bu ko jàppalee amul kenn ku ko mës a jàppale bu dul dëgg bi mu yor ak yaakaar ci yàlla mu koy jox dëgg yàlla di ko dimbale di ko jox dëgg dé mbir mi di leer ba jamono ji mu am ñu bëgg a taxaw fële <clears throat> salfaañi mbir mi loolu duñ ko nangu moo tax ñuy wax ni képp kuy sénégalais ñu ngi lay interpellé état du Sénégal na jël ay responsabilités na chef religieux yi jël seen responsabilité parce que lii mënuñu nangu ay nit dugg ci biir néeg ne Bocar neew fi woon ñu jugé ko bëgg a kase lépp lu mu defoon bañ ko defee léegi def na ñaari weer ba léegi décision bi ñemewuñu ko génne mënuñu koo génne parce que xamuñu lu ñuy wax fan la juge di di di sukkandiku pour wax ni CBAO moo am dëgg ci Bocar Samba Dièye te këyit yëpp wane ni Bocar euh, sa euh, CBAO moo ameel Bocar Samba Dièye xaalis fan la ko mën a sukkandiku moo ñu jaaxal moo tax ñu ngi leen di xaar pour ñu génne décision bi ñu xool lan lañ ci bind parce que rapport yi ñun dañ koo téye donc ñetti poñ yooyu lañ bëggoon alerter opinion nationale bi internationale bi woo ci état du Sénégal ak képp nga xam ne kilifa nga ci dëkk bi pour que nga dugal ci loxo sa loxo ndax lii nga xam ne banque bi ma ngi koy def ci njuuj njaaj ba ay ñi koy liggéeyee ci boppam di ko ŋàññi clients yi di dem seen yoon loolu dagg ci Sénégal moo tax ma di gërëm leen si. mbir moo tax ba tey may wax ak yow nii euh, Bokar Samba Dieye mënagul dugg ci alalam mënagul jot ci alalam bu ci njëkk moy il faut que ngeen xam ne banque bi dafa wax ni bu fayee Bocar Samba Dièye <coughs> moom day daanu waa alalu jàmbur nga sàcc ko liggéey ci pendant fukki at ak juróom ñu ne la fayal nga ne moo ko fayee damay daanu te ñoom chaque jour ñuy fayloo ay nit yoo xam ne dañ leen ameel xaalis fonctionnaire yeeg bu ci gën a ndaw ak bu amelee banque ba sama yaaw xaalis da ko fay weer bu nekk mu dagg la ko waaye moom bu la amelee xaalis mu ne la bu la fayee day daanu ñu ko ci seetaan beneen bi mooy dangay ngay bëreeg banque bi ba am décision ñu ne banque bi na fay nga bëgg a exécuter décision bi ñu ne la banque kenn mënu ko exécuter décision. ce qui veut dire que banque bu la amalee xaalis yow justice jox la këyit pour nga exécuter ko jël xaalis ba kenn mënu koo jël banque yëpp dañoo am banque ci banque centrale compte ñoom ñëpp ay 10 milliards a ci nekk. tey boo jëlee décision bi banque amel comme ni mu amelee Bocar Samba Dièye 11 milliards. mu dem banque centrale pour ñu tibb xaalis bi parce que bu dee keneen la dañuy dem ci compte am tibb xaalis bi ñu dem banque centrale pour tibb xaalis bi banque centrale ne kenn bu mu fi yegsi di protéger banques yi comme si banque yi ñoom loi bi tënku leen dañoo nekk au-dessus de la loi loolu nag il faut que autorités yi jóg ci ñu xam ne loolu du yoon amul benn entreprise boo xam ne war a nekk au-dessus de la loi parce que banque du dara lu entreprise financière. day dañ dañ koy gagné mu def appel ñu gagné waat ko mu def appel boobu ba léegi mu ngi def appel lépp dañ koy dóor. ba mu mat 11 ba mënuñoo jot fexe ba Bocar Samba Dièye jot xaalisam jërëjëf. merci. mbokk jullit yi euh, man de suma xalaat banque bi sax fit bi ñu am di wax ak man jox ñu ma kayit boo nee ne amalu ma leen bor. si ma neexee dem sa yoon deuxièmement toog naa ci rajo sud ne nañ banda fa ma ne leen ku ma bor ñëwal ma jox la maa ngi bàyyi bëgg bàyyi liggéey boobu Abdoulaye Wade moo fadu ñii ñëwoon amul kenn ku mun a wax ne bi këyit laa la nga ma banque bi mënul wax amal na ma amal naa ko liggéey ak ñoom ba ñu yeewu rek ñu ne leen kii jàngul tubaab yëf nag dekkul ñu jàng tubaab dafa naa yaakaar naa nekk ci dëgg moo yoon waaye man daal lu wóor mënuñu génn kayit ñu ne bii kayit moo tax ma amal lu wóor jëkkoon nañ dem tribunal tribunal nommé benn expert ñu ne leen nañu indi traite yu wane ne amal naa leen ñu ni nekk ñetti traite dañuy jëkk indi traite bu kenn signewul expert bi mun a ah, bii mënul baax ñu delluwaat indi beneen bu ñu signé eh, xam nga nag man ku def doo a mat deux cent eh, ci sunu Sénégal bi ni mu tuutee deux cent bateaux mujj bi yi nga xam ne def naa ko ci kayit rek 107 bateau la ah, nan laa leen amalee moo ma jaaxal suñu yaakaaree ne nag jànguma tubaab yëpp waxuñoon jàng tubaab xam xam li nga def ah man nag suñu wonee traite bu ñu wonee ne lii laa leb wala bateau bii laa leen fayul mun naa ci d'accord waaye man amaluma leen xam nañu ni ñoom ci seen bopp amal lu leen te danañ wet ci fi nga xam ne wet werante du am danañ wax amaluma leen man boo gisoon ñu ngoyoon ci man yàlla xam na ko Abdoul Mbaye xam na ko parce que moom a jëkk wax nañu dugg banque man ne ko ah man de banque li ma ci jàng ci wàllu arab muy baaxul boobu du xaalis boobu xaalis amul bi xaalis amee it ñu dugal ko ci xaalis moo tax xaalis dafa ci compliqué waaye normalement bu njëkk du woon xaalis banque bi muy jëkk am du woon xaalis e léegi nag ba léegi su ma leen gañee bi ma leen gañee ñaari ñi ma gañee yépp ay experts yu tribunal yebal ñoom ñu d'accord ci man ma d'accord ci ñu fay fere expert bi ñu ne ñoo ma amal expert yi ñu ne ñoo amal a ah, man day su ma su ñu nee amal naa leen experts yi waxuñu ko xëy na ñoo ko wax waaye experts yi du man maa leen nommé du keneen moo leen nommé tribunal moo leen nommé lan lan lañu lan lañu gis ci man ba ñu ne ñoom amal man daal loolu mooy suma wax